wàcceeg alquran googu ñu doon nettali léegi ak gannaaw ab diir nag ci la ko yàlla yónni wàcce ci moom yaa ayuha nabiyu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiran wa daa'iyan ila allahi bi idnihi wa sirajan muniran wa bashir mumina bi anna lahum min allahi fadlan kabiran yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yónni naa la ci lépp lu ma bind nit ak jinne ku weex ak ku ñuul lépp lu yàlla bind rek yónni naa la ci ñoom lu ma yónni ci ñoom ñu jàmm ko yàlla te buñ ko sakkal bokkaale dégg képp ku gëm ak aljannay béel ku weddi itam nanga ko musuloo ci safaras béel ah bi loolu amee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam commencé di jotal ak yonentam ci ni ka nga xam ne ñoo la ko yonent yépp daan defee seen mbir ci nëbbu lay tàmbalee ak ci néew ji doole yi daanaka mu commencé di woote wax naa la ci biir njëlbeen gi ne bi ko yàlla yónnee moom moo njëkk gëm boppam na rasulu dëggal na loolu ki kooku jëkk gëm nag ci mbooleem li yàlla bind góor ak jigéen mooy xadijatu moom keroog ba ko yàlla yónnee mu wax ko ne yàlla ma yónnee rek keroog la dugg ci diine islam Aboubacar Siddiq yónnante ko oo ne ko yàlla ma yónni ci yow gannaaw bu mu ko laajee ay tegtal yónnante jox ko tegtal yi mu nangu moom it looloo ko dugal ci lislaam gannaaw gi nag bëri na ci saaba yi ñoo xam ne ci oote boobu Aboubacar lañ duggee ci lislaam Bilal ibnu Habash Arumi moo njëkk a gëm ci moomeel yi Yaasir ibnu ak waa këram wala Amar ibnu Yaasir ak waa këram ñoom ñoo njëkk a ci mbayàlla yi ah dañuy nag nit ñi di dugg ci diine ji afwaajan afwaajan benn benn par benn ba jëmmi bés Quraysh daje ci daaru wa ne Muhammad ñi ngi seetaan mbiram mii waaye buñ wattuut dana daj xur nit ñaa ngi dugg ci diine gi kenn par kenn bët bu set dana am ku jeng booba ku jugg ci diine islam dañuy wax ne diw jeng na su fekkee waxuñ ci mbiram nag danañ toog ba nga xam ne dana ëpp doole nañ wax ci mbiram ci loolu ñu commencé jëkkee li nga xam ne moom la ñu ci àddina di jëkkee te mooy won la àddina xiir la ci àddina naxee la ko soo nangoo ñu jàdd loola bàyyi loola li nga nekkoon dugal la ci liñ nekk ci kaw loolu waxtaan nañoo ak baayam ne ko suñ mbokk mi dafay dofloo suñ xel yi di dofloo suñ xel yi bàyyi suñ xel yi doom yi di weddi suñu yàlla yi léegi nag loolu metti nañu dañoo bëggoon mu bàyyi ko su fekkee li ko ci xiir moo di bëgg alal pare nañ pour dajale suñu alal yépp jox ko ko tam bàyyi li muy wax su fekkee bëgg nguur la pare nañ def ko muy buri makka su fekkee bëgg jigéen la pare nañ pour jox ko suñu jigéen ñëpp tem bàyyi li muy wax ñu dem wax ko abu talib a. Ah, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyam ne ko sa bokk yi day ñëw nañ fii di wax waxi juboo mel nañ dañoo bëgg a jubóog yow ne nañ lii ne nañ laa wax ko conditions yi tëral yépp yonent foog ne bàyyam daf ko bëgg a bàyyi ànd ak ñoom mu jooy sallallahu alayhi wa sallam ne bàyyam gëñ naa ci ki bind sama bakkan bi ne suñ jëloon weer wi teg ci sama ndeyjoor mu di ma lakk ñu jël jant bi teg ci sama càmmooñ mu di ma lakk ngir ne bàyyi lii duma ko bàyyi mukk ba bata ko yàlla àggalee fa ko neex waaye nag ñoom suñ nangoo man danaa leen jox benn baat suñ ko waxee képp ku bañ a wax baa boobu da nga leen fay galag wala nga nekk seen jàmm ñu ne ko waxal ñu ko yoon mu ne wax leen laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñu ne ko yàq nga wax jëpp loolu lañ bañ ba nangu li nangu nga wax loo muhammad xanaa seetlu li ngay wax ñun ñi nga amee ñetti téeméeri yàlla ak juróom benn fukki yàlla ak ñett te suñ soxla yi bët bu set muy tag nga di ñu jaamuloo jenn yàlla loolu mën mënta nekk mu ne leen gannaaw ñu yàlla yooyu yëpp mënuñoo faj soxla te ngeen ko bàyyi te ñëw ci yàlla ji yàlla kenn ji waaye daal booba yàlla kaste na seeni xol muur ko ak lëndëm ba mënuñoo dégg li muy wax sallallahu alayhi wa sallam ah ñu ne ko nag léegi baayam gannaaw nangoo loolu ba tey nañ def nii xam nañ ne Muhammad nit ku rafet la te bàyyam sacrifié ko du yomb waaye soo bëggee danañ la jox wane ko waxambaane teewam wu rafet muy amaaratu ibnu walid te nga jox ñu ko su ko defee ñun ñu rey ko tam moom waaw nga defee amaaratu di ko wéttali ko bàyyam ne leen ndax man dama dof ma jox leen sama doom ngeen yóbbu rey jël seen doom di leen ko yafalal loolu duma ko def mukk ca la waxee baytam wu si woon ak naan tallaahi lan yasilu ilayka bi jamiim hatta akunu fi turaabi maa ngi lay gëñal yonent bi ne duñ agsi ci yow mukk lu may dama sàngoo suuf sama jabar yi teñ ñi sama doom yi nekk jirim waaye feeg loolu amul duñ agsi ci yow sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nag gannaaw wax nañ loolu waaw jox nañ ko alal bañ na waaw jox nañ ko nguur bañ na jox nañ ko jigéen bañ na te loolu rek la nit bëgg ci àddina kon nag léegi li fi des mooy nañ ko xeex ñu indi xeex yi nga xam ne moom la tubaab yi commencé léegi ñu di ko tuddee embargo ne léegi nañ dogu képp ku bokk ci banu Hachim dootuñ leen jaay dootuñ jënd ci ñoom dootuñ leen yenn dootuñ en seen jigéen yi ci teen yi buñ teseeg ñoom dootuñ leen abal baag dootuñ takk ci ñoom jabar dootuñ leen may jabar dogu leen bind ko ci seen ba nga xam ne mooy tooñ ba nga xam ne moom lañ suuloon ca Kaaba ga loolu dem nañ ci ba am ñaari at bay dugg ci ñetti at sonaloon na banu Hachim lool dem nañ ba nga xam ne dañoo xiif ba nga xam ne seen der yiñ daan lal moom la ñuy baxal di ko lekk ngir coono bi nga xam ne noonu yàlla yi moom lañ leen teg ba yonente bi sallallahu alayhi wa gannaaw bu ay gone dajee ci ñoom Quraysh waaw wax ne lii suñ mbokk yi def suñ mbokk Banu Haashim ñaaw na nañ ko dindi léegi buñ xëyee nañ dem fekk suñ wàjjur yi fañ toog ak suñ kilifa yi ñu won leen ne lii ñu def du yoon man maa njëkk a wax waaw kenn ki ne maa maa ci tegu bañ ñëwee fekk leen ñu toog ñu ne leen lii ngeen def banu Hachim du dëgg du yoon na ngeen ko dindi te tegu leen ko fen ba muy daane rek keneen jël keneen jël abo sufi abo jaal noonu ab yàlla bi ne lii day makrum bi lay li la pexe mii pexem guddi la yéen ko lal yonent ne waaye ñoom sax téere bañ bindoon dindi ja seen waaw pacte bi seen aada boobu téere ba max lekk na ko turu yàlla wañ defoon ca kaw mi bismika allahuma moom rekk ca def bañ demee sulli ko fekk mu mel na meloon ñoom ñëpp ñu daal di waaw màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li nga xam ne def nañ ko yonent bi ci walla ci lenn liñ ko def ñuy wax képp ku gëm yàlla ne sa gëm yàlla dafa laa war a jaral lu nekk waaye gëm yàlla suñ la wanee àddina nga bàyyi suñ la wanee leneen nga bàyyi gëm yàlla loolu du gëm yàlla yonent bi gëm yàlla sallallahu alayhi wa sallam natt bu nekk yàlla teg na ko ci ngëmam googu moo tax moom wax na ne ku la ëpp may ci yàlla rek ëpp la nattu nee moom moo ëpp nattu ci mbooleem li yàlla bind topp yonent yi topp ci moom topp ki topp topp ki topp jullit dafay nangu nattu yàlla waaye itam gannaaw nattu na wóor ku nekk ne gannaaw nattu xéewal rek incha allah ah bi loolu amee nag ñu ñëw benn bés Bilal ibnu Habash dafay sottil sangam yi ñuy naanoo bañ tudd yonent bi rek bilaal lox ba kaas yi daanu seen kaw ñu ne kii lu muy def nii mu ne turu Muhammad ibn Abdullah mi ngeen tudd mooma jaxase ba xamatuma lu may wax e ñi ci mbaar mi ci gannaaw dégloo leen bëri ngeen wax trop yéen ñi ci mbaar mi ci gannaaw dégloo leen ba loolu amee ah bi Umayya ibnu Xalaf sangam ne xaw ma kuy gëm Muhammad mu di ko jig waaye yow doo ci bokk dal di digal xale yi ne nañ ko yeew futti ko waaw di ko wattat ci jembaraay ju tàng ji ba nga xam ne yaram tàng na su guddee ñu di ko caw di ko sotti ndox su bëccëgee ñu di ko wattat ci naaj wi mu naan ahadun ahad ak lu ngeen mën a def de yàlla kenn la te Muhammad moo yonent yàlla yonent bi romb ko sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi jëm ci kër Arqam ibn Abil Arqam mu ne Abubakar Siddiq doo dem jot jaam yàlla boo xam ne ñu ngi koy bugal te waxut lu may yàlla mooy sama borom Bubakar ñëw ci sangam ne ko dama bëgg nga jaay ma Bilaal mu ne ko ñaata mu ne ko loo ma ko jaayee danaa ko jënd mu jaay ko ci ñeent téeméeri bi door ci la ko jënd nag waa daldi ko goreel ne ko demal wax ahadum fu la neex kenn bugal la buggal Ammaar ibnu Yaasir Aboo Jaal noonam yàlla bi daf ko yeew ci datab tandarma ñuy taxan ba matt mi tolloog dënnam mu ne ko weddil yonent bi ma xalak la mu ne ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasulullah mu ne durru safara safara di takk ba gereesam gi moo doon ruuj di fay safara sa yonent bi romb ko moom itam fekk mi ngi jëm ci kër alkam ñu naari alkam mu ne yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala amaar kama kunti bardan wa salaaman ala ibrahim ee yow seddal seddal jàmm ci yoonu ci amaar ni nga woon ci yoonu ci yàlla ibrahim bañ ko sottee sànnee ca gis nga yàlla moo am kattan yonent bi sallallahu wa sallam def na foofu tasarruf boo xam ne moom rek moo ko njëkk a def bàyyi na safara ci meloom ba pare rocc jikko ja meloo safara mooy jikko safara mooy lakk meloom mooy jërjëri ma ngay jërjëri waaye daal jikko ja nga xam ne mooy lu dend lakk ko loola moom yonentu dindi na ko ba nga xam ne mën ta la kaamaar sallallahu alayhi wa sallam yonentu waxaat leen ne leen absiru ala yasir fa inna mawidukumul janna ñooñu ñoom waxuma aljanna waaye yonentu jox na leen rendez ne dañuy gisee moom ci aljanna ñooñu kenu leen gën gënu leen texe yal nañu yàlla taas seen barke ñooñu su ma yetu seen yaay aboo Jahl noonu ab yàlla bi daf ko wax ne xaw ma ñuy gëm yonent bi waaye yéen jigéen ñi xam naa ne du ci bokk ndax taaram bi waaye yow da nga ko weddi léegi wala ma yóbbu la safara mu ne ko yow kay man maa la yóbbu safara weddi li yonent bi mu ne ko ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasulullah mu jël xeej dëbb ko ci payam ba mu fal ci suuf kooku mooy njëkk a dee ci lislaam ñi ñu njëkk a jàpp ci lislaam loolu lañ daj su fekkoon ne dañu néewal néew ji doole yi kon ku gëma di yàlla danga nga wax ne yonent yàllaa koy wàcceel boppam gannaaw moo koy wattul boppam nag kooku mët ta waaye moom ci boppam loraanga jooju mucc ci def nañ ko lu nekk ba jëmmi bés nekk na di julli ca safaa wala ñu ne ca ruknul yamaan yi aboo jàll noonu yàlla bi wax moom ak mi tam ñu addi ak lenn ci seen féefar yu bon yooyu ne Muhammad ma nga nelee di sujjóot ak siggi ne yaay dafay jàmm yàlla ju kenn xamul fu mu ne ana kuy dem waaw sotti ko sébrit ma jox la fukki gëléem abo jàll noonu ak yàlla bi noonu kay man maa ko yeeyoo ñëw fekk yonent bi fi muy julli mu bàyyi ba mu sujjóot mu fab sébrit sotti ci kawam ak gëléem gu doon wasin mu fab àndaale ba sotti ci kawam loolu doyut mu fab tànkam bu xase boobu teg ko ci doq ak yonent bi dëgg ci ba ay bëtam bu xeeku bay bëgg a génn waaw foofu lañ def loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku mën a muñ la nag ku mën a jéggale la ku mën a jëlale la waaye keroog mer na ba nga xam ne daf leen a ñaan yàlla ne allahuma alayka bi quraysin allahuma alayka bi abu jalib ibnu hisham allahuma alayka bi shaybatu allahuma alayka bi utbatu allahuma alayka bi walid ñoom ñëpp mu ñaan leen yàlla mbooleem ñam ñaanoon yàlla keroog xare badar ñoom ñëpp tër nañ leen sànni leen ci kàmb safara sallallahu alayhi wa sallam bi loolu amee nag doomam Fatimatu Zara dégg niñ def baayam mu ñëw jël ndox raxas ko moom set mu jàllar bi ba nu Quraysh seen sang yi mu xas leen xas seen yàlla yi saaga leen saaga yoo xam ne kenn mënu ko wax ci wolof Abu Jahl ibn Hisham noonu yàlla bi ne ko am nga sens ndax li ngay jigéen waaye lii nga wax su fekkoon góor gu bokk ci Banu Hashim moo ko wax kon dootu ko wax gannaaw yàlla loolu moo tax xam Hamza ibn Abi Talib dugg ci diine islam ba ñëwee ñu nettali ko ko ne ko soo fekkee woon ni nga xam ne noonu la noonam yàlla bi def tey sa mbokk mi kon de sa yaram dana daw nii la ko def nii la ko def ba Fatimatu am ñëwee raxasal ko loolu waaw ba pare ŋaññi leen ñoom Quraysh boo Jahl ne ko su ko góor gu bokkoon ci Banu Hashim wax kon dootu ko wax mu ne loolu la wax ñu ne ko loolu la wax mu daldi waaxu gis nga xam sa suñu doyoon góor gaynde ak yàlla ak ab ñëw fekk leen ci daaru na doo fiñ toog mu ne Abu Jahl num ni Hicham noonu yàlla bi dégg naa ni nga def sama doomi mbokk mi waaye su ma ko fekkee woon fekk mi ngi amee ak fet mu dóor ko ci bopp ba mu xar kon danaa la def loo xam ne ne ko ko tar mu ne ko ah xam Mbawdo yow da ngay waaj a jeng mu ne ma tey jeng ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna Muhammadan rasulullah looloo ko dugal ci lislaam guddi googu yonent dem na nag ba nga xam ne waaw ci jaaxle gi jot doomu aadama jaaxle na ko ba muy ñaan yàlla naan yàlla yàlla nga dimbalee lislaam kenn ci ñaari omar yi omar ibnu xataab wala omar ibnu hisham booba seydina omar tuubagut di ñaan fekk ñoom ñaari ña ca kaaba ga di naanoo naan seen sàngara ba ma di tëdd téere yi ñu ne booba omar moom dafa tëdd taano aboo jaal dafeenu moo tax ñaan ga omar la ko jël ba ba setee nag omar jóge fa di ñibbi këram ma nga mandi nag di tërëf daldi taseeg benn mbokkam ñu ne xusaybatu la ah ne waaw lu xew ci makka mu ne ko lu kenn mës a dégg mu ne ko lan mu ne ko sa yoon sa doomi mbokk mi yonantu yonantul woon passé na foofu léegi léegi indi na ab téere bu ñuy wax alquran ñu di ko jàng suñ koy jàng nit ñi dañuy tàggoog seen sago di def kef kef kef seen rongo yi jooy mu ne ko alquran mu ne ko waaw mu ne ko alquran kenn du ko jàng ci makka mu ne ko sa kër sax ña ngi ko fay jàng teel sa loxo benn yoon mu ne ko sa kër sax ña ngi ko fay jàng mu ne sama kër kenn du fa jàng alquran mu ne ko fatimatu bintu xataab sa rakk moo koy jàng omar ñëw ba mu ñëwee ba jub kër gi dégg jigéenam ngi jàng sabaxa lillaahi ma fi samawati wa ma fi l ardi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir huwa alawalu walaaxiru wa zaahiru wal baatin wa bi kulli shay'in alim mu nees kay ay waay ji wax a rafet ne ndaw si ma seet ndaw si ne ko déedéet mu ne ko xam ne toog ci nday jooram ali nag ci càmmoyam saaba yi sënk ko nag si kër si takk ñu wuti jàkka ja bañ romboo Quraysh si daaru nadwa ñu ne xee kii mel ni Omar ibn Xattaab ñu ne Omar la kay ñu ne Omar jeng na ñu ne Omar jeng na ñu ne baax na su ngeen jogul ci mbiram muhammad Mi. daneen toog ba nga xamne dana daj makka najaayam abilaas yi ne leen xaw ma omar jeng xaw ma omar jub waaye ku gëm muhammad da ngeen ko lor waaye sama jarbaat bi. képp ko laal danaa ko diggaale yow moo tey gëm yéen a ngi ay doj di ko jaamu te kenn waxu dara su ko neexee gëm yàlla ah ñu bàyyi omar nag omar di jaamu yàlla ñëw ci yonent bi ne ko man nag dama nekkoon mbër ci jaahiliyatu fépp foo natt mètre daanaka mooy naa fa yàlla ma bëgg ni ma feesalee makk ak mooy yàlla ma feesal ko ak tudd yàlla yonent ne ko am nga ndigal mu topp makka nag su nit ñi tëddee guddeeg bëccëg ma ngay sikkar laa ilaha illa muhammad rasulullah laa ilaha illa muhammad rasulullah tegale ko semaine dara fekk ko ci kenn loru ko mu ñëw ne yonent bi ah man de dama jaaxle képp ku dugg ci lislaam danañ la lor danañ la buggal man ma dugg ci lislaam kenn waxuma dara mbaa du yàlla dafa bëggul sama tuub mu ne ko ah kay waaye sa nijaay abilaas yi moo wax ne ku la laal dana ko diggaaleeg moom loolu tax kenn waxu la dara mu ne man xéefar ji ma garanti loolu du am daal di ñëw fekk ko fi mu toog ak sa nge Quraysh mu ne leen yéen lu tax ku dugg ci islam ngeen lor ko man ma dugg ci islam loru leen ma ñu ne ko sa nijaay lañ boo leen da najaay ji ak yàlla ji mun jaamu yëpp wax leen loo xam ne kenn mësu koo dégg najaayam ne ko yaa bon te sa bi nga dese woon de démb rek laa ko fay mu ne ko yow caag man bëgguma garanti xéefar ah mu ne gaañu jóg song ma nag di ma dóor ma itam may dóor ñu di ma wéq may wéq ba sama yaram tàng jër ma ne waaw kay ku bëgg yàlla ak tam ñu lor la man ma bëgg yàlla kenn du ma lor loolu neexuma a ah, loolu mooy lislaam Omar ñu dugg ci lislaam nag yonent bi sallallahu alayhi Quraysh di ko fexeel pexe mu ne ci àddina fexeel nañ ko ko lor ju ne lor nañ ko ko Abu Jahl ibn Hisham noonab yàlla bi waxoon na ne may naa Muhammad lu nekk ba mu des jàng alquran ci Makka bés bu jàngee alquran ci Makka rek danaa toj boppam bi bañ ko waxee yonent sallallahu alayhi wa sallam mu waaxu xel yu dëgg tëb dugg ci biir jàkka ji di jàng alquran fa baatam tollu ñu dem ne Abu Jahl aha yow kat yaa ne woon bu Muhammad jàngee da nga toj boppam Muhammad ngay jàngal Quran loolu nga dégg ca kaw baatam la Abu Jahl waaxu nag ay ma ngay dem toj boppam yonent bi dal di gàddu tëngab doj gis nga moom dof la woon su daan dox dafa yëngal boppam ndeyjoor ak càmmooyam naan ma bay na laabatee ya akramu min nii mu ne ñaari doj yi sekk amata ku ko gën a tedd nekku fi ñëpp moo leen gën loolu la wax gàddu doj wa nag ne ma ngay dem toj boppam yonent bi waaxu ko makka yépp dog di seetaan naan ñëw leen seet Abu Jahl ibn Hisham noonu nag ku jàng Makka dana toj sa bopp Muhammad ibn Abdullah gi noonu jàng alquran Abu Jahl ne na ma ngi koy rey nañ leen dem seetaan yi ñu topp leen nag Abu Jahl di waaxu di waaxu ba ñëw ba jub kaaba gi fii nun ti jàngee sallallahu alayhi dox bi yéex lool muy dox ba mu yàgg mu ne temm taxaw ba mu yàgg rek mu ne bëxër ñit daldi ne samp xelam romb ñu ko doon waaw xanaa daw ba ne carax këram ñu topp ko ne ko waaw ah yow sa nga Quraysh lu xew yow bu fekkoon Muhammad dafa jàllar ko sax wala mu xupp la nga daw xel wi nga daw ñu xam ne loolu la waaye moom jàllar ko yëngatuut nga daw xel wi nga xam ne gone sax mosu ko dàq moromam mu ne leen yéen sant leen yàlla kii bi ma ko jubee kuyel gëléem laa fekk mi ngi taxaw ci ronam fab mbaggam fab ngaamu suufam teg ci ron tànk yonent bi ngaamu koom tiim boppam yonent bi tàmmiñam di lakk làmmiñam di takk safara mu ne ma booy jege yonent ma di la wan na ba may séqi rek mu wutal si ma ah, waaye loolu bu doon yen itam da ngeen daw loolu ma tax a daw yaboon nañ ko bañoon nañ ko waaye yabuñ koon bés benn teefanke ñëw na ci Makka xamee ay gàttam di jaay Abu Jahl leb ko ne ko ñaata mu wax ko mu leb ne ko demal ba waxtu sangam ba waxtu jotee waaja ñëw di fayeeku mu wax ko na ne xanaa yow da nga dof man buur Makka laa kenn du ma fayeeku bor jógal fii laa wax waaja dem ak jaaxleem kum dem ci sang rek ne la aboo def ma leboon waaye nii la ma def nii ma def nga ne ko ah kooku ay waxam waaw la sant mu di ko def baag ci mitam ibnu addi kooku di yëjji yonantu bi ne ko ah benn pexe rek dalaa la gisal mooy kële toog ca ron safaa di wax ne yonente bi lan la ak kooku day su ci mënu dara kenn mënu ko ci mu ñëw fekk yonente bi fi mu toog sallallahu alayhi wa sallam nuyu ko ne ko nuyu naa la yow bi yàlla bi man day dañ maa tooñ ma ñëw di tawat sama tooñ ne ko Abu Jahl noonu yàlla bi dama doon jaay samay gàtt mu leb ko ne ma demal ba waxtu jot léegi nag ñëw naa mu ne moom buur la kenn du ko fayeeku su ma ko jegee te mu dog sama bopp ku yaakaar nag dem naa ci ñu ne kenn mënu ci dara yaa ci man dara ma ñëw nga bëgg nga dimbale ma yonent ne ko nañ dem tey mu fay la di jiitu waa ji topp ci kawam Quraysh ci di seetaana seetaanati naan tey lu bon xew Muhammad a jàll waaye tey rek la rey nag ñu noppalu ci moom mu ñëw fekk ko ci këram ay jéebéram koy tëggal mu naan sàngara ba maan di jéggar yi di ko tëggal di faj ba yonent fëggee bunt bi moom Abu Jahl mu ne fi mu tëdd ci kaw lal bi dafa fettax ba ba gaag ci xaddab néeg bi dellu si lal bi ne ko kan la mu ne ko man la Muhammad hubil mu ubbi mu ne ko fayal kii laa wax mu ne ko léegi dal di génne wurus di ko fay di compte di ko jox ba waa ji ne ko doy na mu ne ko waaw demal sa yoon rek mu génn dem sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy ki nga xam ne Quraysh noonu lañ ko doon def waaye ak liñ koy bañ yëpp amuñ woon ci moom pexe waaye daal bi lor ji méttee ci jaami yàlla yi nga xam ne mooy saaba yi ko topp te moom ñëweti na leen jox na leen ndigal ne nañ gàddaay ci lañ gàddaay nag dem xabash fekki najaasiyu mi nga xam ne moo nekkoon foofa te nekk ci diinay nasara bañ fa nekkee baam ab diit Quraysh fexeel nañ leen yónni Amaaratu ibnu Walid ak as ak Amru ibnu Laasi ne nañ dem fexeel leen pour jéem leen faa jële ndax ñu war indi leen makka ñu delloo si leen ñu rey leen bañ ñëwee nuyu najaasiw jébbal ko addiye yi nga xam ne moom la Quraysh préparé pour jëkk ko a jox addiye mbooleem ay ministre jox addiye jaraafam yépp ne ko nag buri makka ñoo ñu yebal ci yow ak sangi makka yi dafa am suñu bokk yu jógee foofa ñëw làqu si di ci sa réew mi te ñu bon lañ réew muñ dem danañ ko yàq dañoo xamee loolu ñuy tuddee diine suñ demee li bàyyi daan jaamu ak maam yi dañ koy weddiloon nit ñi gëmloo leen loo xam ne kenn xamul fu mu nekk waaw indi ab téere tuddee ko alquran di ko jàng téere la boo xam ne dafa mel ni jabar bu ñu koy jàng nit ñi jooy kenn dootu ànd ak sa sago soo leen génnewul sa réew mi danañ ko yàq ni ñu yàqee makka loolu tax ñu bëgg nga génne leen waaw delloo leen makka loolu la ñu sang yu yónni ah ne ko nag nit lañ ñoo xam ne wuñ kenn seen yonent rek lañ def muy nit sa yonent bi sax di yonent yàlla Isaa gëmuñu ko a ah, te li mi lañ wax ci tegtal mooy ne suñ ñëwee fii di la nuyu ni ñuy nuyoo ni la yi nuyoo ñëpp di la ko nuyoo ñoom duñ buñ ko nuyoo a buñ koy nuyoo abaytalaana lañ koy nuyoo waaye ñoom ñu ñëw mu ne nañ ma ool saaba yonent bi ñu ooleen jaafar moo jiite biñ ñëwee baag si jaafar ne ndax may ngeen ma ma nekk seen porte parole ñu ne ko waaw ñu ñëw ba ñëwee ba jub najaasi yu ak ministre bi ne asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ne ko gis nga gis nga gis nga duñ la nuyu mukk ni la sa nit ñi nuyoo mu ne leen waaw yéen lu tax nuyu leen ma ni ma sama nit ñi nuyoo seetal li ngay def waay seetal leen ma mu ne ko lu tax nuyu leen ma ni ma sama nit ñi nuyoo ñu ne ko ñun dey nuyu nañ la nit ñi nuyoo suñu yonantu bi nuyu nañ la nuyoo bi nga xam ne mooy nuyoo lislaam nuyu nañ la nuyoo bi nga xam ne mooy nuyoo waaxal janna nuyu nañ la nuyu bi nga xam ne sa yonent bi kii Isaa moom la nuyoon boppam mu ne amoon boobu nuyoo neex na ma ne waaw seen yonent bi lu mu wax ci suñu yonent bi ñu ne ko dafa wax ne du yàlla du doomi yàlla la du doomi yàlla waaye baatab yàlla la di roxoom di jaamam di ab yonentam mu ne cey loolu de dëgg la waaw ndax ànd ngeen dara ak seen téere boobu jafar jàng saaru mareem ba mu ci inni abdullahi aataani alkitaaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan aynama kuntu wa bi salaati wa zakaati ma dumtu hayyan wa baran bi walidati wa lam yajalni jabbaran shaqiyan wasalaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma basu hayyan najaashu jooy ministre bi asimbant ne leen gëñ naa ci ki ne kii li muy wuutewut ak la Isaa doon wax lu toll ni mant si te seen wax yu ñuy wax ci benn robinet lay xellee daal di leen yéen mbaa du wóolu yàlla yi ngeen may booleet su ngeen ma su ma leen déglu woon rek danaa xalaku ne leen dem leen ngeen jaamu yàlla ne leen neexee ne leen dàq leen ñoom ne leen ñu dem ñibbi ñoom ñi doon fexeel li noonu yonent yi eh, saaba yonent yi foofu lañ mujj waaye yonent nekk makka nag si di continuer di ko lor di ko def lépp luñ xam ci lu bon biñ demee ba mbir yi tag mu ne ku am kër ndey am nga kër bàyyi léegi ma ngay dem taayif ca kër na yaayam su demee ca asraabu bani saqafata ñaan fa ndimbal ndax ñu dimbale ko mu mën a jotal diineem ba mu ñëwee fekk fa ñetti sang mooy abdou shams ak abdou daar ak abdou yaa lii la mu fekk leen ca taayif ne leen man de dama ñëw ñaan si ndimbal yàlla daf maa yónni ne naa ko jotal mboolem bindee fii ma bëgg ku ma làq dimbale ma ba ma jotal li ma yàlla yoon nii loolu moo tax ma seet si leen ñu ne Abdou yaa lii la yaay seen kilifa tontul mu ne ko su fekkee yàlla la yónni ëpp nga ñu mënuñoo wax ak yow su fekkee da ngay sosal yàlla itam kuy sosal yàlla ñun duñu wax ak moom suñu emoon foofu loolu day na waaye ñu ebal jigéen ñi ak gone yi ak xaj yi ne nañ topp ci kawam di ko toroxal di ko xëpp suuf di ko bravo ba nga xam ne ëllëg xelam dootu dañ ñëw ci ñoom noonu lañ ko def sallallahu alayhi wa sallam di ko sànni xeer ba dojoram yi toj di naaj muy dëkkani doro ji di ko fomp ci kawam ndax bu deretam laaloon suuf rek yàlla dana xalak xeet wi te mu bëggul loolu moo tax muy dëkkanu deret di ko fomp ci kawam waaye yemut foofu ba demee ba toll ci xanu saali bi nag fa ko deret ji gand mu daanu fekk Shayba toog ibnu Utbatu ñu ngi ci seen toolab tàndarma ñu ne xoolal Muhammad rek dana dee ci mbire mi la te kenn waaw te kenn du ko wuyu dal di dindi tuuti tàndarma waaw boole ko ndox jox ko seen benn jaam bu nana naan addaas ne ko demal jox ko ba mu ñëwee raxas ba set sallallahu alayhi wa sallam mu ne bismillah addaas lox ba daanu ci koom ne ko ji wax day waa tund bi duñ koy wax yonent ne ko yow foo dëkk mu ne ko man maa nga bàyyee koo maa nga bàyyee ko niin waa mu ne ko baladu yunus ibnu matta mu ne ko danaa xam yunus ibnu matta mu ne ko yonent la ni man nekk mu nekk yow booba moom loolu la doon seet ci la jébbalu sallallahu alayhi ci la jébbalu moom Addaas ah yonent bi mu dellu see nag Quraysh bañ na dootu dugg Makka gannaaw génn na léegi dootu fi dugg waaye mu dellu ci bàjj woo xam ne mitam nu addi moo ko bàjj mu dellu si waaye bi loolu xamat malaaka yi waxtaan nañ ne suñ borom daal moo mën a seetaan kii nga xam ne mooy sangab lépp lu mu bind lépp lu mu bind moo tax mu bind ko seetaan ko noonu di ko def nii lii daal doy na waar yàlla na leen dem leen su bëggee ndimbal ngeen may ko ndimbal xalak saa rek ñu cëppeelu ci ronam ku nekk gaaral ko sa doole kii ne ko man maa hilif lax sa bay ni ñaari doj yi nga xam ne ñoo seq tiyaamata maa ko hilif soo ma joxee ndigal ma tappe gaañi léegi mokkal leen kii ne ko man maa hilif ngelaw li kii ne ko man maa hilif ndox mi ku nekk wane sa doole mu ne man bëgg naa lu gën loolu bëgg naa ay doom yoo xam ne dañuy génn ci seeni i ndigg di wax laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah mu ma gënal li ngeen wax dal di jàllat bi ko jubloog boromam ne allahuma ahdi qawmi fa innahum laa yaalamuun seetal kii baal na leen xemut ci baal leen layal na leen xemut ci layal leen ñaanal na leen sallallahu alayhi wa sallam loolu moom rek a ko mën ci sa ci noonam sallallahu alayhi mu dellu si makka nag waaye gis nga jaam wala jullit su ko yàlla nattoo mu muñ xéewal nga ca biir nattu goo xam ne mooy gën a waaw màgg na ba ci fan yooyu ci la ko yàlla rañaanee yóbbu ko asamaan mu def rañaanam moomu nga xam ne moo ko njëkk a def ci taarix day ñaanoon na boromam ne ko rabbi arini anzur ilayka ne ko yow yàlla may nga ma teraanga ju nekk xottil nga ma baaru xalsoom ma jàll sama nit ñi tojal nga ma doj yi bindal ma fukki sewde ak ñaar naka noonu waaw may nga ma mën noog salwaa su ma xiifee taaba wàcc taaba may lekk teraanga yooyu yëpp am ko waaye léegi nag dama bëgg nga may ma ma janoog sa jëmm ju sell ji gis la yàlla man noog salwaa su ma xiifee taaba wàccal taaba wàcc ci aljanna may lekk teranga yooyu yëpp am naa ko waaye léegi nag dama bëgg nga may ma ma janoog sa jëmm ju sella ji gis la yàlla tontu ko ne ko lan taraani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa taraani na ngeen ko xamee falamma tajalla rabbahu lil jabali ja'alahu dakkan wa xarra Muusa saa'iqan kooku bam ñaanee yàlla ko dama laa bëgg a gis mënoo maa gis xattanoo loolu waaye jublul ci doj wi soo xoolee doj mu nekk fa rek danga ma gis su fi doj bi nekkul nag yow mënoo maa gis seetal nag yonent yàlla Muhammad ci ndéegam la ko yàlla fekk andil ko daaba ju bàyyi ko ca aljanna muy alburaaq muy daaba joo xam ne moo ko njëkk a war andil ko ko mu war ko sallallahu alayhi muy daaba joo xam ne waruwaay yi léegi li ñuy gaaw gaaw gaaw yowuñ ni moom ndax fu bëtam dal rek weem dal di fay dal ba yonentu waree weewa dal di bay dul maqdis bët ba dal fa yonentu wàcc sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa mboolee lambiya ak mursalina ñu di ko teeru mu jiite leen ñu julli ñoom ñëpp ñu dellu ci seen i pays ah mu waraat alburaak dal di jàll dem ci asamaan su njëkk ba mu fëggee yonentee la adama la fa fekk mu nuyoo ko la jibril القرآن أك محمد يوني نينكو يوني نينكو كن دلائك كان موي محمد دعائي لاجرك نخي يوني نينكو أي يوم يب جانغو نينكسين تيري جكي نه محمد موي سن سانغ تموي خاتم الأنبياء موي إمام المرسلين نخي يالان كوي نتلي تلاي جا نان وي لخنا ميساق بني إسرائيل وي لخنا ميساق النبيين لما أتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه qaala aqrartum wa aqrartum moo tax kenn du laaj kan moo yónni ci yàlla Muhammad da laaj rek ndax yónni nañ ko suñ ne waaw nga ne yónni nañ ko ah bi loolu amee nag sallallahu alayhi wa jibril jàll dem ci asamaani ñaareel yonent yàlla isa la fa fekk ak yonent yàlla yaxya asamaani ñetteel yonent yàlla yusufa la fa fekk asamaani ñeenteel idrisa la fa fekk juróomeel haruna benneel fa la fekk yonent yàlla musa juróom-ñaareel farata ak yonent yàlla Ibrahim yonent yëpp nag kum ci romb da nga ko nuyu te tagal ko ñaanal ko yàlla waaye bi mu romboo yonent yàlla Moussa moom dafa xul dafa xuloog boromam ne yow sama borom yaa mën a gënale man day dina la ñaanee nee na damaa bëgg dama laa bëgg a gis lan taraan yi nga ma waxoon waaye kii ca néegam nga ko fekk nit ko alburaax takkal ko ba mu rafet ga ndi ko muy gisee ak yow yaa mën a gënale man na xamul tax doo jël sa gi te ma nekk kenn rek ci xeetam kooku mu yonent yàlla Moussa yonent bi dalaa jibril ne ko ko kan la mu ne ko Muusa la mu ne ko lu wax mu ne ko day xuloog boromam yonent bi ñaanal ko daal di jàll sallallahu alayhi wa sallam ah léegi nag jeexal na asamaan yi jeexal na bayti maamoor jeexal na kursi ak mustawan léegi nag mooy dugg ci pays yàlla yoo xam ne kenn mosu faa dugg jëkk moom jibril nag ne ko fii laay yem yonent ne ko bul def loolu kenn du ànd ak sa xarit ba ci tukki mu jafee nii nga ñëw bi fi mu gën a méttee nga ne da mu ne ko juróom-ñaar fukki péyeng ci sama kanam yoo xam ne bu ma ci jege rek dana ma lakk ni safara di lakkee cunkóor bàyyi mu ne foofaat fa la yonent bi sallallahu alayhi delloo géej lu doon ndox ci moom delloo safara lu doon cërëb safara ci moom delloo suuf lu doon cërëb suuf ci moom lépp lu doon cër boo xam ne ci luñ bind la rek te nekkoon ci jëmmam ji nga xam ne moom lañ toggale yàlla delloo loola loola mu delloo ca jëmm ja nam fa jóge woon nekkaat ca xàqatul muhammadiya dugg ci pays boromam ba mu duggee nii la duggee nuyu boromam taxiyaatu lillah zakiyaatu lillah tayibaatu salawaatu lillah yàlla daal di koy fay ne asalaamu aleyka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakaatu moom mu jàllal bi ku ñaanal xeet wi ne salaamun aleyna wa ala ibadullahi salihin mbir ma na màggee moo tax malaaka yi yëpp xànnadoo sujoot ne ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyina muhammadin abduhu wa rasuluhu loolu mooy rañaan ni noonu la jeexee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem ca boromam mu waxtaan ak moom lam wax moom def moom nam def ak moom téere yi nag werante nañ ci loolu werante wu rëy ñii wax nañ ne yonent dafa demoon ak jëmmam lépp ñenn ñi wax ne dafa demoon waaye roxob rek a demoon waaye loolu bu fekkee loolu la loolu ñi dul yonent sax ñu ngi koy am seen roxo ngi rañaan ba léegi di dem fu nekk di dellu si kon nag xarbaax bu ko yàlla defal yonent yàlla Muhammad lu mu defalul kenn la koy defal moo tax bàyyi ne yàlla bi muy wax subhaanalladi asra bi abdihi la wax jaamam ba lépp la rañaane yóbbu ko moo tax yonent dem sallallahu alayhi wa sallam rañaan moomu nag danañ ci nettali te yi doy waar yoo xam ne xew na ca tàng bi mayewu ko ndax guddi gi jeex na waaye daal ba muy wàññeeku boromam jox na ko ñetti xam-xam yoo xam ne wax na ne bi naa ko xamal ñëpp mooy shariatu bi ko yàlla yónni benn bi naa ko xamal ku ma soob xamal naa ko omar ak abubakar ak benn bi nag maag sama borom rek loolu mooy xam-xam yi nga xam ne moom la indiaale muy indiaale ñu nag julli yi juróom maanaam booba dañ koo farataal ci ñun mu nekk juróom fukki julli ba mu ñëwee mu ne ko loo ci sa borom mu ne ko jox na ma juróom fukki julli pour sama xeet ñu di ko julli bët set mu ne ko dellool sa xeet wu sàggan wii soo leen yóbbulee juróom fukki julli danañ ko sànq duñ ko matal Moussa dellu yàlla wàññi fukk mu ñëw Jibril Moussa Moussa ne ko dellul yonent bi dellu alayhi salaam yàlla wàññi beneen fukk Jibril na ko Moussa ne ko dellul mu dellu yàlla wàññi beneen fukk Moussa ne ko dellul dañu di dellu digganteem ak borom ak Moussa ba mu des juróomi julli Moussa ne ko dellul mu ne ko léegi nag rus naa dellu wax dëgg yàlla juróom fukki julli ñu di ko wàññi ba mu des juróomi julli léegi damay jéem a muñ waaye ma dellu yàlla ne ko maa yu bëddalul xawlu la daya juróom fukki julli yi ma waxoon wàññi ko ba ci juróomi julli tere wut képp ko julli ci sa xeet danaa ko nangul juróomi fukki julli ndax man jaa abil xasanati fa lahu ashru amsaliha benn bu nit indi fukk laa koy nangul kon nag nañ ci góor góorgóorlu képp ku julli sa julli juróom rek am nga juróom fukki julli ci baaxe yàlla nañ ko julli te di ko matal sallallahu alayhi wa sallam yonentu ñëw nag ba mu ñëwee at moomu at mu métti la ci moom ndax ci la bàyyam bu baax boobu génn àddina di Abdu Abo Talib ci la jabaram ji baax jooju itam nga xam ne mooy xadijatu mi nga xam ne wax na ne moo ko njëkk a gëm moo ko njëkk a dimbale moo ko njëkk jox alalam moo ko njëkk a fat bi ko ñëpp bàyyee kooku koo moo doon wéttalam kooku itam génn àddina te mooy ki nga xam ne moo jur doomam yépp sallallahu alayhi wa sallam doomu yonent yépp ku mooy Ibrahim rek xadijatu mooy sa yaay waaw loolu yàlla nga ko may ci nangu gim nangu ak teral gim teral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadijatu moomu génn àddina mu nekk at mu métti ci moom séefar itam di ko fexeel naan Muhammad def nañ lu nekk munuñ koo fexeel léegi nañ seet pexe muñ def ba ko ñu daje ci daaru wa di waxtaanee mbiram foofa nag fekk nañ fa am mag mi ngi toog dafa gàtt ba nga xam ne bu nit ñi toogee moom bu taxawee lay door a tolloog ñoom waaye sikki ñoom dafa gudd ba nga xam ne ci lay kaalawu ñu ne ko góor gi may ñu dañuy waxtaan mu ne sama noon bi rek ngeen di waxtaanee Muhammad ibnu Abdillah bàyyi leen ma ma fekkee waxtaan wi mag laa te yàgg naa fexe su ngeen waxee su jubee ma ne leen jub na bu jubul ma leen jubut ñu ne góor gi foo jógee mu ne man maay magam najat ñu ne magam na jege sil mu daal di doot dooti ñëw toog ne wax leen ma dégg ki jëkk a wax ni léegi daal li ma ci xam mooy nañ ko njoñ ci gëléem daq gëléem gi mu dugg ci àll bi mar dana ko rey wala xiif mu ne ko yow bul waxati yow yaa gën a ñàkk xel ci mboolem ñi fi daje Muhammad mii ni mu rafetee ni mu neexee baat ni mu amee xam-xam su ngeen ko defee loolu teen bu mu jëkk a jaar ñoom ñoo koy fat balaa ëllëg ñu def ko buur mu ñëw tañ makka ci seen kaw keneen ne léegi nañ wut ñaari maddi gëléem xeew gi ci ndeyjooram xeew gi ci tànkoyam ñu dàq gi mu jëm ndeyjoor ñu dàq gi mu jëm càmmooñ ñu xar ko ñaar mu ne xanaa defe ne du borom yi bokk loolu ay bokkam duñ ko seetaan ñu ne bon nag dañu wut waxambaane tooyam nandal ko sàngara ba mandi ñu fay ko xaalis mu dem rey ko lu ay bokkam fayee ko danañ ko fay mu ngi leen képp ku def loolu yërëm naa sa xeet kon sa giid yépp ko Banu Hashim leen rey ñu ne ko góor gi sonal nga ñu yow pexe muñ tëral nga ne du noonu nan la nag mu ne leen léegi Muhammad du nelaw fajar mukk fajar ju jot dana ñëw julli si ci kaaba gi léegi danaa leen da ngeen di def nii xul leen pax gas leen pax ci buntu kaaba gi lal ci am mbalaan suy ci suuf moom buy dox dafay téen rek di temp su ne sërax ci biir wax pax mi rek seen jaas yi dox ngeen rey ko pare suul ko foofu ay bokkam fayeeku leen halal ngeen fay mu jeexu waaye fekk mucc ngeen ci alalam ci hayam ñu ne ah, waaw waaye pexe mi mooy pexe mi moom jub na mën naa xam itam waaye li ñu si jaaxal mooy ñun suñ fanaanee ci suñ géew yi di ngom laan di naan sàngara ba bët set ba digg guddi suñ tëddee nelaw dootuñ xeew lu may tusbaar kenn duñu mën a xee mooy leen bu mu jaaxal man ba ma yàlla bindeeg léegi la te nelaw nelaw digal ko ne na gàddaay na jógee Makka gàddaay de Medina fekk bi loolu di amat ay saxaaba daanañ ay nit daanañ jógee Yesriba di ñëw di aj ci kaaba gi ndax akaaba yi naka jekk dañ koy aj su ñëwaan mu topp ajkat yi di oote ci loolu ci la am ñu bari ñoo xam ne ñu dëkkee Medina jaayante woon nañu moom dugg ci diineem bokk na ca sart ba nag bés bu ma yàlla yónnee suñ ma génnee waaw bés buñ ma génnee dangeen ma fat dimbale ma ba ma jotal li ma yàlla yónni ñu ne ko waaw moo tax ba ko yàlla waaw mayee mu gàddaay Medina la jëkk a jublu dem fa sallallahu alayhi wa ah mu dem pare nag di julli ji yàlla xamal ko pexe moom nga xam ne moom la banu Quraysh nas digal ko ne na gàddaay mu wax ko Seydina Ali ibn Abi Talib mu ne ko ndax yàlla digal na ma ànd yow mu ne ko déedéet waaye daal aboubacar la ma digal ne na ànd ak moom fekk aboubacar foogoon na ko di yar ay gëléemam di toppatoo waaw yóbbalam bi nga xamee ne yoon ci yëgal na ko ko nag mu kontaan bay jooy radiallahu taala anhu mu dal di ubbi koppar fooram ku bëri woon alal la la ca nekkoon ci wuru sa xaalis yépp mu def ko ci ay mbuus sëf ko ci gëléem fab koppar foor bi feesal ko dell ak ay xeer dal di koy tëj jox baayam caabi ji ah ba yonent si ñëwee sallallahu alayhi wa julli ci kaaba gi fekk Quraysh ña nga daje tëdd ba ñuy laal suuf magam najat moo njëkk a nelaw moom mi wax ne mos ta nelaw boobu juddoo ba tey saa ñoom ñépp ñu daal di nelaw yonent jaar julli bi mu jullee ba pare génn fekk leen fiñ tëdd mu duy seen njañ yi bañ fees ak suuf kenn ku nekk mu faf xeer tegale ci sa buntu gémmiñ jaar ci seen kaw dënn yi jàll dem ñuy nelaw ba kuweel jinne moo leen romb sadd ay bayt ne yal na yàlla yërëm ñaari gawar ya nga xam ne ñoo wàcc ci xay yi umuma bat ñu dal ne tiret xeewu ñoom ñëpp xeewu nañ magam najat ne ngang di nelaw ñu fëgg ko ne ko góor gi jógal mu dal di fudd bébbali dal jóg ne cey mën na xaw moo ne nelaw nii la neexee ñu ne ko yow góor gi ba nga juddoo ba tey nelawee sa liggéey ah mu ne leen ana Muhammad ah mu ne leen moo fi gën a mu ne leen waaye nag mag du jeexal pexe léegi gën a pexe mi yàqu na léegi li ma xam mooy nañ wut juróom-ñaar fukki waxambaane tooyam jox leen ay jaasi ñu dem rek fekk ko këram ci diggu bëccëg bi song ko rek dal di koy rey dara la madu bunaa ci mënut ci loolu lu may faye ku ñu xalal ñu fayal leen ñu ne bisimilaay fekk bi yonent dem sallallahu alayhi wa wax na Seydina Aliin mi nga xam ne moo doon bind katam képp ku ñëw di dénkaane aliin lay wax ne bindal mu bind diw doomi diw ak diw bés sangam ci dat sangam dénk na yonent bi nangam dal di bind taf ca loola amu ne ko des fi yow yaa xam dénkaane yi su noonu yàlla yi ñëwee nga jox leen seeni kóllëre suñ la rayee gàddul naa la aljanna suñ la rayu nag ba pare nga ñëw fekk sima ne ko tëddal ci sama lal bi sàngoo sama mbalaan mi gis nga ali dafa guddoon ba nga xam moo barabi tàndarma yi ñoo dend mu tëdd sangu malaanam yonent bi su ko sàngee su muuree boppam ay hoomam du nekk ci biti su muuree ay tànkam dënnam dafay nekk ci biti te yonent ne ko buñ la reyee gàddu naa la aljanna mu bëgg ñu rey ko nag mu muy def ngon-ngon ba sangu ca mbalaan ma xam nga tëdd ba du jàkk a ah, Quraysh si jógee fa nag di ñëw tenkeem tenkeem ba ne jalañ ci kaw Seydina Ali ne def leen dànk lal bi lalab yonantu la malaat mi malaanam la waaye borom tët bu ñaaw bi di ne garab gu daanu Ali ibn Abi Talib la ne ko ay jógal xàmmi nañ la waaw ana yonantu bi dafa daw ak suñu yi mu ne muret sànni mbalaan bi ne leen yéen bon yéen a ñaaw làmmiñ kii bi muy ndaw yen yéen a ko tudde woon Muhammadul Amin ndax xóoram ana nay dem ba nekk mag waaw daw ak seen xalal yu bon yi nga xam ne tekkiwu dara man waxuma dara waaye lor ngeen ma seen xalal yee tax ma def fii su duutoon ak seen xalal yi damay geraw damay gàddaay ànd ak yonent bi ne leen ànd ak seen toroxtaneet bakkan yàlla demee na ab jàmmam yonentu gàddaay na dem na mu neex leen mu naqari leen mu ne lii yëpp kat maa ngi koy wax di leen tappaas pour bëgg rek ñu rey ma ndax li ma yonentu bi wax ne buñ la reyee yóbbu na laal na waaye gaañi bàkkaar rek ñemewuñ ko mu génne yóbbante yëpp jox leen ne leen nag maa ngi nii dem fekk yonent bi képp ku bëgg sa jabar tënji say doom nekk jirim nang ma fekk ci xuur bi rek ma yóbbu la safara mu ne loolu lépp bëgg gaañ song ma waaye daal gaañ ñemewuñ ko sallallahu alayhi wa sallam mu ànd ak waaw aboubacar siddiq ak abdoulaye ibnu wurayqit mi nga xam ne moo leen di won yoon wi bañ demee ba ñetti fan am nañ ko ci xunt mi di déglu ba nga xam ne rej mi dal na ci biir ñetti fan yooyu noonu yàlla yi ñëw nañ ci xuntu di seet tànkam parce que Abu Jahl ibn Hisham moo wax ne képp ku wane yonent bi mu dund walla mu dee danaa la fay téeméeri gëléem téeméeri nag téeméeri jaam yu góor téeméeri jaam yu jigéen danaa la jox danaa la jox danaa la jox gis nga yaaram fu ñu dee xala la leen faray ah ñu futteeku nag tasaaroo ci waaw saxraa bi di seet yonent bi naan tànk yaa ngi gëléem gaa ngi gëléem gaa ngi di ko def baag si ci xunt fekk yonent ci biir ak abubakar siddiq ah waaye ba yonent yi dugg rek jargo ñëw na ramp ramp bunt bi bam ne taras fi tax ñëw nen ca bunt ba garab ak ndañentaan sax fa ah ñu ne mi ngi fii ñu ne waaye yéen xanaa da ngeen a dof su fi duggoon dana yàq kër ak jargoñ gi wala mu daane nen yi wala mu yëngal garab gi fii nekku fi abubakar a ngi tiit bay lox fekk yonent a ngi njegenaay tëdd ci kawam mu jooy yonent ne xifeet ne ko abubakar lan nag bañ ba jub madina te seeg suraqatu ibnu malik almudriji kenn la ci jàmbaari quraysh yi mu rëppatal fasam wuti yonent bi ba mu ñëwee ba jub ko yonent bi suuf jàppal suraqatu suuf ne dal dal dal mu suux bay waaj a ci suuf ne yonentu wallu ma ak ak bokk yonentu ne ko su ma la bàyyee nga bàyyi ma mu ne ko sama bàyyee ma bàyyi la mu ne suuf bàyyi ko suuf bàyyi ko mu dem ba ca kanam dellu si suuf dellu ko wan na yonentu ne ko maa ngi lay wax lenn soo dellu see beneen yoonu ñetteel lu ma la gaaw gaaw a ràmmu da nga daanu ci ma te dootuma la ràmmu suraaqatu ibnu malik loo xam ci keroog bu sama saaba yu hubbee faris fab ndëppal kisaanu sirwaana dëpp la ko nga nekk booru julli ñi bu keroogee looy wax mu ne loolu dana am mu ne loolu dana am mu daal di gindi jaaru bi ci loxoom jox yonente bi sallallahu alayhi ne ko fii ba Medina gétt yoo fi taseen maa ko moom soo leen wanee jaaru bii rek lu la neex may naa la ko ci sama alal yonente bi ne ko waxal ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu mu ne ko ah loolu moom teel na yonente ne ko man bëgguma la li delloo ko jaaroom Suraqatu moomu ba mu ñëwee ba ak yàlla bi sangi makka dañ ne ko yow day sa leer gile ak sa xet gu neex gii yow boo tuut gis nga yonent bi mu ne gis naa ko kay ñu ne ko bu ko fi nettalee nag amu ne lu tax ñu ne ko lu tax na gis ko tarewoo ko mu ne lu tax ngeen bàyyi ko mu dem tarewu leen ko ah ñu ne ko ñun pexe nañ ba tey mu ne la ko aaroon moo ko aat mën na lu ma ko dara sallallahu alayhi wa sallam fekk waa Medina tegere nañ ay fan di ko séentu suñ xëyee xeeg ci seen tàndarma yi di seen tuba goon buñ ko gisul rek ñu wàcc ba ca benn bés benn yahoot moo yéeg ci tàndarmaam rek dal di xaacu ci kawam ne ee eh, yéen waa Medina génn leen seen xéewal gu mag gi ngeen doon séentu ñëw na yonentu baa nga ne sallallahu alayhi wa sallam Medina lépp génn na góor ak jigéen ñu ngi fa feni waaw tabala fa lépp lu mën a bégle rek ñu ngi koy yëngal waaw di bégal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko woyal naan talaal badru alayna min saniyatil wadaayi wajaba shukru alayna ma daa lillahi daayi ayuha almabuusu fiina jita bil amri almutaayi jita sarafta almadina marhaban yaa xayra daayi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ ko doon woyal ba mu dugg Medina mi ngi waaw kaalawoo kaalaam googu nga xam ne waaw kaalaab xob la waaw dal di war gëléem gi nga xam ne moom la ñuy waxaat baaw dugg bi mu duggee Medina nag ñëpp rëj rëj loo yonentu ne bàyyi leen ab baaw ci ndigal la yooyu mu dem baag ci benn pakk ne groupe sukk daldi jóg daw baag ci beneen sukk jogaat dem ba ci baraamam ñetteel mu sukk tëral baatam daldi jooy hii hii hii yonentu ne hunal manzili insha allah fii mooy wàccuwaay bi baat boobu mu tëraloon place boobu mu tëraloon baatam di jooy foofu fa lañ suul yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam loolu gi doon jooy ah, saxaaba yi njëkkante nag ku nekk ne maa koy dalal ñuy def rëj rëj rëj rëj rëj Abu Ayyub al yi ne ma day xam naa ne mënu maa am yonent bi dalal ko waaye xaaral ma yóbbu bagaasam yi ko ko barkeloo ko waxtu coow li dalee ma yët ko bagaasam fu mën a dal yonent ne waaw man sax ci coow li an sama bagaas ñu ne ma nga kër Abu Ayyub al-Ansari yi mu ne a ah, almar uma arahlihi nit mën ta tàggoog bagaasam kon nag foofa fa la ngan gi nekk booba la dem na wàcc ci kër Abu Ayyuba waaye mu laaj pàkk boobu ñu ne ko ay gone yu bokk ci banu Najjar moo ko moom waaye joxe nañ ko addiya mu ne déedéet ab yonentu gàddaay lu muy ci abu Abubakar moo jënd pàkk ba jox ko ko addiya fa la tabax këram këram mooy jàkkaam mooy bàmmeelam boobu nga xam ne sallallahu alayhi ba léegi ci la tëdd loolu mooy waaw gàddaay gi ba mu demee nag ba am ci Medinatul Munawwara ak saaba yi di gàddaay di ko fekk si afwaajan afwaajan ku ñëw mu bokkale la ak kenn waa muhaajirina bu ñëw mu booy la ak benn waa lansaar ne kii mooy sa mbokk su dee yaa koy donn yow moo lay donn ñoom itam ñu def ca lu mat ku am ñaari jabar suñ la bokkaleeg nit nga bàyyi kenn ki su yeddaam jeexee nga ne sa gan takkal ñoom seen alal yi ñu nekk ci loolu bi ñuy amal ñaari at a ah, li ñuy wax crise économique jot leen maanaam bekkoor daal di fa ñëw ñu sonn lool ba ñëw ñaan yonent bi ne ko mosuñoo tedda di sag ñaan te léegi bekkoor gi métti na dañoo bëgg nga ñaan yàlla ndax daal bekkoor gi metti na ñàkk nañ rafle nañ xiif nañ yonent bi ñaanal leen sallallahu alayhi wa sallam dig leen ne leen yàlla jégal na ma nangu nañ ñaan yi dana ma dimbale kenn ci ñaari kuréel yi ah booba ñoom xamuñ lu muy wax ndax booba li dal waa Medina moo dal waa Makka moomu ñoom itam ñu nga xiif bekkoor a bekkoor bay lekk seen xaj yi dajale mboolem li ñu ci alal nag jox ko abu Sufyan ibnu xarb Nana dem sham jëndali leen waaw dund <clears throat> ah abu sham abu Sufyan génn ci gawar gu man ñeen fukki nit xalal yi màkk yépp ñu dajale ko jox ko pour mu dem jënde ji ko dund andi bañ demee bay ñëw yonentu jóg benn bés di reju dégg na ñoom ñu ngi wàññeeku mu ñëw ci benn teen taxaw di déglu mi ngi toog ak Aboubacar Siddiq gëléem dégg as ndaw di wax morom mi naan ko lebal ma su su njëg gi ñëwee ëllëg danaa ci liggéeyaan fay la yoon su ne Aboubacar dégg nga mu ne waaw ñu taxaw ba mu yàgg ñu wàññeeku di dem ndaw sa ne leen eh yéen laa wax ah ay nit dana ñëw taxaw rek ba mu dem fu ngeen dëkk ak fu ngeen bàyyeekoo ak ci gan jiit ngeen bokk karekat du mën a wax boppam dafay nëbbu te yonent itam mën ta wax baatil mu ne leen nax nu min ma yaaram am nañ xabaayil yu bari am na ci xabila bu ñuy wax xabilatu bani maayin mu ne leen ñun foofa lañ bokk waaye sànni na leen boobu ñu ngi jublu maamun daafir yaxruju min bayni sulbi wa taraayib ndoxam ma ñu mi nga xam ne ku nekk ca nga jógee mu ne leen ñun foofu lañ jógee ah ñu dem ñaari fan rek Abu Sufyaan agsi dal di laaj ne waaw lu xew ci réew mi ñu ne ko jàmm rek mu ne suñ mbokk mi ñëwoon fii yonantu yonantulu ñu di ko wax Muhammad lu ngeen dégg ci moom ñu ne a ah, dégg nañ ne nit ñaa ngi gàddaay di ko fekk si ma ngay tasaare diineem nit ñaa ngay jàng tabarkàlla ndaw sa ne hey man sax de ki ma gis démb fii su dul moom dana ma jaaxal man de gis naa góor gu rafet ba tey waaye mosuma gis ku rafetee noonu Abu Sufyaan lox ba daanu ci suuf ne ko nu mel mu ne ko xar-xaram dafa wër mel ni weer ay bañam dañoo weex bakkanam dafa yëkkatiku ay tuñam dañoo sew sikkiñam dafa yem ay sukkubatam dañoo sëx tegtal ko waa ji ba nga xam ne boo janoog moom rek da xam ne yonent bi nga gis mu ne ko tigi yaa gis Muhammad ibn Abdillah dal di dem fa gëléem ya taxawoon xarnu mbaajël ya fekk ci saali tàndarma mu ne ko mu ngoog lii yafal ak waa Medina la ñoom ñooy yafalee tàndarma dal dina aboo dam-dam kaay demal ma makka soo demee nga wax aboo jalim no ibn aboo jalim wax ko sang makka yépp ne leen luñ gaaw gaaw Muhammad ibn Abdillah dana ma dog dana ñu rey dana nangu njëgg mi nañu gaaw wallu suñu ñu ñëw wax leen ko nag ah abo jali bi sam noonu yàlla bi comme abo dam dam moom dafa doon ku texee di ba muy dem di leen ko wax dafa wut ay yar caw boppam ba yaram am yépp di nàcc mu coof ay noppam dugg makka digg bëccëg rëppatal pënd bi topp ko dam dam lan la mu ne yaa makka axiisu axiisu wallu leen wallu leen lan la mu ne li may wax ca jaaru kaaba rek laa koy wax ko bëgg ñëwal makka ne dëll daje ca kaaba ga mu leen gis ngeen ni ma Muhammad def mook saabaam yi ne nañ su fekkoon ne yónni wuñ ma dañ may rey waaye gannaaw dañ ma yónni reyuñ ma lu ngeen gaaw gaaw nag seen dëgg mi ngeen yónni woon danañ ko dog moo tax Abu Sufyaan yónni ma ne naa ñëw ngeen wallu ko Abu Jahl noonu yàlla bi dal di bépp dal di sigire ne bés bi ma doon nekk ñëw na ne yàllu hubal waaw ne hubal la yëkkatikul bés bi nga doon yëkkati bés bi nga doon xaar ñëw na tey lay dajeeg Muhammad ibn Abdillah jax ko dars boo xam ne arab yépp danañ ko dégg ba kenn dootuma ñeme ba di ma sangu mu génn ci xare boo xam ne junne nit lañu ah bañ génnee yonentu génn moom ci xare boo xam ne ñetti téeméer lañ ak fukk ak ñett te ñetti fas rek lañ xam ñi xam ne juróom-ñaar téeméeri géléem xam ne ñetti téeméeri fas xam nañ gànnaay ba mu doy ñii nag amuñ sax ngànnaay ay dàll yuñ sol sax amuñ ko ay xob lañ fa def ko seen tànk yi moo nekk seeni dàll waaye daal ñu gànnaayoo gëm yàlla def ko muy seen doole ñu ñëw ba ñëwee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi leen daal di digal fekk bu daan dem xare wala tukki mu mën a doon dafay tàggu waa këram su paree tàggu doomam Fatimatu Zahra su paree julli ci jàkka ji ñaari rakka door a dem su ñibbisee ci jàkka jële lay jëkk a jaar def ñaare rakka nuyu doomam Fatimatu Zahra door a dem nuyu waa këram ba mu defee loolu ba pare nag dal di génn ci xare bi bu ma la wax ñetti téeméer ak fukk ak ñett ah wax saaba waat leen digal leen xiir leen ne nañ ñeme te tayit buñ ragal buñ dellu gannaaw suñ dëgëree mi ngi leen di dig ndimbalal yàlla ñu ñëw ànd ñun day wax dëgg yàlla bi ñuy ñaan yàlla di ñu gën a loon mooy ñu jot ci ndëgg mi suñ demee ba jaglu ba am doole nag waaw door a xeex waaye daal moom xeex bi moom gënalu ñu woon waaye yàlla mi def lu ko neex moom dëgg la bëgg a wane bi ñëwee ba badar ñu tafeeg abu sufyaan ci buntu makka ne ko njëgg mi raw na abu sufiyaan wax wax ko abu jaal ne ko njëgg mi raw na nañ waññeeku mu ne waññeeku damay dem ba àgg badar xare bii ma àndat ku nekk taxaw aw say muy junne say ñu taal ko biir bi àddina bi yépp seen ko ñu tëggal ma sama junju yi ma loj sama géléem yi naan sama sàngara si sama jéebéer yi way ma ba nga xam ne muhammad dootul xalaat ma yónni nit mu ne daf koy dog bàyyi ne ndekete yoo duñ ko woy dañ koy jooy ndekete yoo du loj ay gëléem moom lañuy loj ndeke yoo kàmbi safa yooyu muy taal moom lañ koy sànni yonentu ñëw ñu mbaaral ko sallallahu alayhi wa sallam muy ñaan yàlla yow yàlla yàlla nga dimbale kuréel bu néew doole bii kuréel bu tuuti bii soo leen seetaanee ñu dàq leen ku lay jaamu ci suuf dootu fi am yow yàlla yàlla nga dimbale di ñaan di ñaan di ñaan Ali ibn Abi Talib mu ne su ma duggee rek fekk naa ko mu ngi ñaan waaye baat bi mu doon répété nga xam ne waxtu ne moom lay wax mooy yaa xayu yaa qayum bi rahmatika nastaxiisu loolu daan wax képp kuñ tëkku soo sikkaree baat yooyu yàlla dana la musal ci ki nga doon tëkku du la mënal dara moom la doon sikkar yaa xayu yaa qayum ah ba mu ko defee sin tuuti rek sallallahu alayhi wa sallam mu gëmmantu daal di gis jibril a ngi ñëw ànd ak junney malaaka mikaayil noonu israfil noonu azrail noonu malakul mawti noonu muy juróomi junney malaaka yoo xam ne yàlla ebal na leen ne nañ dimbale yonent ci xare bi sallallahu alayhi wa sallam malaaka yooyu ba ñu ñëw yàllaa ngi leen di eb na leen fadribu fawqa l-anaaqi wadribu minhum kulla banaanin su ngeen demee de leen leen caw jaas ci loxo lu leen ko caw itam ci dok kuñ ko caw ci dok nga dee kuñ ko caw ci loxo itam say loxo dog dootoo mën a xeex waaw moo tax ba ba xare badar malaaka yi wàccoon nañ ci xeex dimbale yonent bi jullit ñi ñu ne niñ doon xamee rey ci malaaka yi mooy kuñ fekk ñu rey la nga mel ni dañ laa lakk ba nga mel ni këriñ rek xam nañ ne malaaka yi rey ndeke yooyu ñoom bi ñuy ñëw seen jaas yi dañ ko tàngal ci jahannama junne at door ko indi moo tax kuñ rey rek da ngay daldi carbonisé ci saa si ñëwee nag ñett a jëkk a génn di saybatu ak Utbatu ak Walid ne ana suñuy kem ñett génn ci lansaar Awf ak Muawaf ak Abdullah ibn Rawaahata ñu ne yéenay ñan ñu ne ñii de ñett lañ ñu bokk ci lansaar jaay seen bopp jëndee ko yàlla ñu ne baax ngeen waaye nag ñun suñ kem yi bàyyee ko woon makka gàddaay fekk yonent bi ñooñu lañ bëgg a xeexat yonent ne ana Hamzatu ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib mu ne maa ngi mën a ko jógal ana ali ibn abi talib ibn abdul talib mu ne maa ngi mën a ko jógal ana abu bayda ibn al haris ibn abdul talib mu ne maa ngi mën a ko jógal ñett ñooñu ñoo songoog ñetti xéefar yële xamsatu